assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi nuyu jullit di nuyoob lislaam di nuyoobu di ñaan borom bi subhaanahu tabaraka wa taala mu defal ñu njéggal ak yërmandeem mu mel ni dañuy del siwaat rek ci jotaay ak yóbbulum ndaw ñi muy xam-xam waaye di jataayu fàttalikonte bu ñu bàyyee xel sunu jataay bii mujj ñi ngi doon jàngale jëf yi nga xam te nii dafay firi am njàpp maanaam day toj am njàpp kon sunu bindu tey nag dañuy jàngale jëf yi nga xam te nii ku amudu njàpp waru koo def moo tax mu ne fas doon lii ab bunt la fii maa ca la nga xam ni yum naxu def na ko tere fi'luhu ay jëfam bi xayri wudu in ci lu dut ak njàpp laysa li xayri mutawaddi in déet muy ñeel ku aji jàpp salaat julli wala tawaafu du caagéene wër bayti man néegub yàlla ba nga xam te ni yuuli dana méngale asilaat mbir kamassi mushafin ni laal ab kaamil xul waxal aw jildin wala ab der lahu ñeel ko bil oodi ci bant aw bi saw bi wala ci mbalaan aw naxwin wala yu nuroog lahu ñeel ko lakin waaye nag massa jus in laal ab xaaj man ka nga xam te ni taallama dana xamlu fiihi ca moom faxad juwiza dagal reef na ko indal ulama fa way xam-xam ya wallawhu ab aliwe kal kitaabi ni ki ab tee fi taarimi ci xaamal ga li xayri zil wudu ñeel kudut aji jàpp ya amim yow sama xarit mu nekkat ab jullit kon wërta tëb dal ci julli te yërut njàpp moo xam jullik farata la moo xam jullik sunna la wala muy wër kaaba ga te amul njàpp wala muy laal ab kaamil te yërut njàpp waxula ab kaamil sax waaye laal lu bokk ca kaamil ba sax waru koo def te fekk amul njàpp moo xam nag kaamil ba dañ ko muur ci ab der wala mbalaan wala lu mën di doon rek waru ko laal te fekk amul njàpp donte da koo fekk ci sax ak toogu ñu teg ko fa jël toogu gi teg ko fekk yorul njàpp wala ñun roog yooyu yëpp waaye nag may nañ ki nga xam te ni dafay jàng alxuraan lu bari wala mu koy jàngale ngir bëgg koo kooku moom may ko muy laal xaaj ay jukki ay jukki ci biir kaamil ba ngir mën a jàng wala muy jàngale mu ne na nga xam ne te ab alluwe dafa yor àtteeb kaamil aliwe juñ bind day yor àtteeb kaani kon moom it loolu mooy war ci nga xam te daf koo yittewoo fekk yorul njàpp waru koo laal lu dul ki nga xam te ni dafay jàng wala muy jàngale moo tax mu ne waaye nag yay juusu dana dagan lillazi ñeel ka nga xam te ni yu xàllamu dana jàng masun laal kaza niki nii musahihun aji wéral la muxallimun aji xam lu ja wa massu siyaab sibyaa wa masu sibyaani laalu gone ya bin najaasati ci sobe ka massatil kibaari nit ku laalu mag ña fil isyaan ca moy ya laakin waaye nag al ismu bàkkaar ba alal munaawili mi aju ci aji yónnee ja wala takun déet mu munaawilan ca kañu yónni kañu jotalikoon yaa saa ili yow aji laaj bi mu ne xam ne nag daganal nañ ci ki nga xam te ni day jàng di sàkku xam wala muy jàngale bu amee ngànt nga xam ne mënta jàpp wala amul ngànt jàpp wut muy laal ay xaaj ngir jàngale wala muy laal ay xaaj ngir jàng donte sax jigéen la boo amee ngànt may nañ ko mu laal ay xaaj ngir jàngale wala muy muy jàng ngir mokkal waaye bu dee koo xam te ni day jàng rek ngir wut tiyaaba rek moom dafa war a jàpp faaw mën na nag bu dee gone goo xam te nii nag amagut bàkkaar wërta laal ab kaamil waaye nag bu laalee ab kaamil du du am bàkkaar ndax suñ borom toggagu ko ay bàkkaar waaye bu dee nag dafa fekk ay loxoom am sobe nit xool ko bàyyi ko ba muy laal kaamil mag moomee mooy am bàkkaar wala mu yónni ko ne ko jotal li ma téere bee te fekk moom am na laab waaye nag gone gi amul laab te am na sobe ci ay loxoom kon bu boobaa moom moomu mooy yenu bàkkaar ba waaye gone gi du ci am bàkkaar mu ne wa man yu salli ku julli bi laa tuxrin ci lu dut ak laab abada ba faw bi laa darurin ci lu dut ak lor fa zo fisxin kook ak saay-saay la ba daa feeñ laysa lahu déet di ko ñeel bi zalika tayammumi ci googale tiim yowmal xiyaamati yowmal xiyaam si waa jahannama nara sawar aasana yàlla nañu musal allahu yàlla minal xuswaani ci pertaange wa sharri iblisa ak ayub iblis madal azmani ngir jamono mu ne nag ki nga xam ne dafa julli te amut benn ngant ci laab mu jóg rek dem julli te jàppuwut na nga xam ne kooku ab saay-saay la mu tayal rek dem tiim rek ñëw julli nga xam ne dafa tayal rek mu ne kook kat yamal xiyaam tiimam googee mu tiim du ko jural lu dul sawara na nañu yàlla musal ci pertange ak ayu iblis ci ngir jamono kon nag ki nga xam te ni moom dafa lànk rek tayel rek moo waral mu dem di tiim di julli nee na kooku moom ab saay-saay la te tiimam googu muy tiim nga xam dara waral ko amul benn ngànt lu dul tayel rek julli rek tayel a laab nee na kooku loolu du ko jural lu dul sawara ëllëg yamal xiyaam ak pertange kon yàlla nañu yàlla musal ci pertange ak ayu iblis kon loolu jara bàyyi xel la ndax ki tayel a laab moo ki tayel a julli rek ñoo yam ñoo yam ab àtte kon yàlla nañ suñ boom defal tawféex defal ñu digg ak topp in uridu illa al islaaha mastataxtu wa ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon ñu ngi leen di jox digg daje ci beneen jamono di fi jub ci yàlla la lu dëng ci jëmm yi xeeb yi la suñ boom defal ñu tawféex nangoo ñu fu muy jaan yàlla bil